adduna ji nga xam ne moo nekk moo nekk suñu kanam lu defee ne dara la li ci tiit ak a jàq bëgg ñu am ak lu amul du dara kenn jàmbaar mayewul yaafus xañewul loolu war sax xam na ko war sax dëgg am na ñuy wax laa yoo xam ne yoon dañ koy wax dañ léegi ñu wax dëgg jàmbaar mayewul yaafus xañewul أدنى لي شيء وايم سنبوا ما هو خامل تدري لا كجوا ما هو خامل بارين ما هو خامل مش وايم مل سنبوا ما هو كجوا فنك مفك له فارم وآله ما أسيا بالنجوب واغفر لوالدي واغفر للجميع أهلي وجملة الشهاب يا سمير